salaamaaleykum bokki téléspectateur Widish TV amatu nañu mbégte contentement tasewaat ak yéen defaat rek euh, sunu tànk ak seen tànk comme ni ñu koy aadawa di def lépp loo xam ne rek lu baax la ñu jox ko càmbar ko lijjanti ko teg ko ci seen i loxo ak seen i gët ngir ngeen mën koo jariñu tey nag ki ñu seet si mooy boroom xam-xam bu mag donn ko jàng ko yéwén ci lool fas yéene ci euh, gunge askan wi ñu gën ko xam ci turu gàndu Diallo Euh, dañu koy nuyu nag euh, bàyyi ko mu nuyoo ak askan wi ñu jàll ci waxtaan wi nga xam ne nag fas nañu ko seq ak moom euh, ci fii ci Widish TV Gando salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa yaa ngi am jàmm. ñoo ngi sant yàlla bu wér alhamdulilah. bu ko defee dañu lay bàyyi nga nuyoo ak téléspectateurs yi. waaw asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu ñëpp di baalu ak tamit di baal ak di ñaan ba tey aussi gars yi nañ ñu baal ak parce que wax yombul. macha allah te donte dañoo doon ay xale tamit mais boo gisee tey ñu am fi toog fii nii du par hasard dañu am autorisation maanaam dañu am ndigal te ñun dañuy jàng ba tey donc ba tey ci ndigal rek lañ mën a wéy gars yi lépp luñ luñ fi mënti wax mu doon amuñ intention maanaam di ci di ci naxarlu nit ku ci mënti gis boppam itam nañu nañu baal ak jàppe ñu xale te yàlla. macha allah eh, merci beaucoup waaw Gando dañu gis ne euh, dañu fekk ci yow xam-xam boo xam ne macha allah kenn doo du ko naa table Euh, ñu bëggoon a xam ndax njàng la wala dono la wala nu mu la dikkee. waaw xam-xam moom ñun moom lii nii dañ koo gaa gaa fekk nañ ko ci kër gi sax mais dañ koo jàngi. Hmm. man moom dama dem jàngi vraiment. fekk naa nag sama yaay sama ñoom maam ñëpp dañuy liggéey dañuy seet mais man moom dama dem jàngi. ok waaw vraiment. da nga yokk cere dolli ñeex. man nañ waxee noonu sax de. <laughs> ok <laughs> waaw. Euh, voilà léegi ñu bëggoon a xam par exemple euh, ñu dugg ci benn jafe-jafe boo xam ne. Euh, c'est typiquement africain mën nañ wax ni léeg-léeg africain yu bari te duñu xam lan moo leen dal nan lay dikkee ak lan moo mhm. muy mhm. muy euh, faral nañ di ko gis ci sunu mbokku yi mhm. ñu def léegi lan mooy loo ñu mën wax ci waaw euh, ñuy wax ji dugg ci domaine ni mooy last niveau quoi ci xam-xam parce que bépp doomu aadama bi ko yor ku jara moytu lay doon. Mhm. te sëriñ yëpp aussi ci loolu la ñuy ndamoo parce que moom mooy force nit ki. Mhm. donc ci korte korte ci gàttal korte mooy missile rek bombe atomique. ah missile képp bombe atomique. ok képp ku ko yor rek ku ñu war a moytu la moo boo gisee ma jox la exemple ci géopolitique un peu mu yàqee korte noonu la mën a yàqee nit. maanaam nit ki mën na toog fii sànni la ko. su mu génn réew mi corte dafa bëri façon. ok xam naa ni après dañuy ñëw ci façon yi. bien sûr mais corte daal ci gàttal mooy xam-xam boo xamante ni pour rey nit la. Hmm. waaw mooy corte. ok xam-xam rey nit la. ok mooy corte waaw. léegi ki nga xam ne dañu ko corte naka lay xamee ne dañ ko corte ak ku ko gis naan ngay xamee ne kii corte moo nekk ci moom. waaw loolu dañuy ñëw d' abord balaa ñuy dugg ci domaine boobu noonu. je mhm. pense que dañuy ñëw d' abord ci qualité corte yi. Mhm. kor dafa bëri façon trop trop trop hmm. te ñu bëri ñu ngi wax kort corte kort mais xamuñu luy corte hmm. te walla mësuñu sax gis corte grand kort baaxul de waaw moo tax ñu bëgg nga expliquer ñu lan mooy corte gis nga corte benn xam-xam wax naa la ko comme sànq ci ci ci kii bi benn hmm. xam-xam bu mystique la waaw boo xam ne dañ koy yor pour yar nit maanaam pour faj benn métti du xol bi nga am. Hmm. wala pour wane sa ngóora. ok eh, kon corte dafa bëri façon. maanaam ni tooñ la nga bëgg a jëflante ak moom waaw nga bëgg ko nga mu tooñ la nga mënoo ko baal nga rey ko wala ni jëm jël sa jabar mënoo ko baal nga rey ko. wala ngeen bokk ngeen bokk géewu góor. ok ku nekk di wane xam-xamam. ku nekk di jaay man man maa la ëpp xam-xam. wala ngeen di xëccoo alal. wala ngeen di xëccoo benn affaire mu rey la. ok léegi kortu nag am na boo xamante ni da lay rey ci maanaam dañ la koy dañ koy sànni nit ki léegi léegi maanaam fu mu toog noonu. Mhm. mu nëpp ci biir. nga ni. maanaam dañ la koy sànni léegi léegi léegi léegi. mu yàq la léegi mooy de trois minutes fi nga toog nga nëpp di génne ay sax. allahu akbar. am na korte boo xamante ni nga baal ma tëgg répété benn histoire. Mhm. am na benn suñu suñu fële euh, fu ñuy fu ñuy jàngee fële. benn géewu góor buy am chaque année maanaam chaque année dañuy jël sëriñu par exemple sëriñu mbuur yëpp ñu ne dañ leen yóbbu ginnaaw dëkk bu ñu xool kan kan mooy góor kan moo fi man aay gën a aay ok bu ñu defee loolu mm-hmm. ñu jël gaa yëpp yóbbu leen sëriñ yëpp ñu toog foofu noonu chaque année dañ koy def ñu rey ginaar rey béy rey nag rey xaj entre parenthèse terme boobu noonu ñu jël bopp yëpp def ko si cin ñu ne ku fi mujj suba moom bopp boppu xar yi ak béy yi ak kii moom boppu béy bi euh, nag bi ak xaj bi maanaam moom mooy bàyyi sëriñ yëpp. ok te képp ku ci wóolul boppam tamit nag mën na yëg loo xam génnee si boppam. am na beneen ku fa nekkoon ku tudd Mamourou mu ne man képp kuy fanaan fii man may baayam mu tënku gaay yi gaay yi di wër ngelaw sànni ko kort mun ñoo fexe ba ko beneen jógee fale ñëw mu nekk wax leen Mamourou xeex bi jeex na. ok Mamourou bañ. mu takkal ko benn kort gis nga da koy boole karité mu teg ko ci naaj mais carte bi nu muy seeyee noonu ci naaj bi maam noonu la yaram bi di daggee di daal pour wala mesurer rek niveau corde fu mu fu mu fu mu toll. ok yaa am na carte xeeb de. waaw corde bi koy xeeb dañ koo xamut am na corde boo xam ne dañ koy wax kooku dañ koy faral di sànni si gémmiñ parce que loolu pour xale bu réew la nit ku réew. Mhm. dañ koy sànni si gémmiñ fii génne ay sax gémmiñ bi. am na côté boo xam ne gobelin boobu dañ koy sandi nit ki day bopp bi day mel ni comme ça ay melentaan ñu nekk ci bi bopp bi di daw. dafa bëri façon. am na boo xamante dañ koy sandi ci ay tànk tànk bi gaañu am góom boo xam ne mënu fexe ba wër. mooy góomu deewaale. waaw de moo lay rey am na xam ne dañ koy sandi si biir yaram day nekk ci biir yaram bi di daw waaw mais nag yi ci gën a garaaw mooy boo xamante lay rey ci saa si. Mhm. mais yenn ni kortu yi sedd la kortu yi ma lay wax nii. ay góob rek korte yu sedd la. waaw mhm. am na korte yu tàng jër comme ay dëñëri nii ay bilankoro yëpp ay korte yu tàng la. mais nag def nit ki loo xam ne aussi léegi léegi lay dee mooy tane nga koy rey à petit muy dem di jafe-jafe ba keroog. muy dee waaw waaw loolu aussi ça dépend ci ci ci contexte yi rek. Mhm. su ma bëggee wane léegi man góor laa. Mhm. maanaam damay rey ci saa si. déet waay. waaw mooy fekkee ni dama bëgg woon ni góor laa quoi. ñu ñëpp ñu nekk fii nii. ok waaw dama lay rey ci saa si mais am na korte yi tamit boo xamante ni bu ci benn nit mais day rey kër gi yëpp maanaam ci baay bi ki ngay xeexal doom yi rakk yi béy yi kër yi léppay daanu ta yàqu. Mm, am na boobu da nga koy def ci mbokk lañ koy liggéey da ngay ji mbokk ba da ngay defar ba mbax nga ji mbokk ba mbax nga boo ko daggee rek bu daanu rek kër gi bay daanu. léegi ki nga xam ne dañ ko kort. Mm-hmm. léegi boo jàkkaarloo moom nan ngay xamee ni kii dañ ko kort. waaw boo ko seetee di nga ko xam. Mm-hmm boko sété di nga ko xam mm, boko ko di nga ko xam quoi. nga xam ni corte la. té après di nga xam ban genre corte la aussi dang koy dindi. Mhm. parce amna corte yo xamanteni anti drame amul manam buñ la ko santé da ngay dé rek. ok ah. kenn mënu ko faj. kenn mënu ko faj. ok xana nga tomber ci gaga ko xamanteni amna amna na am na antidote day faj façon corte yu bari mhm. sinon.

xam nga am na lu bëri ñuy syphilis. syphilis yaa ngi dégg feebar bu wax syphilis. waaw syphilis d'habitude gars yi fii ñu ñun corte nañ am na genre corte yu mel noonu. ok maanaam day jox plaie syphilistique. ok dans le gosier fii nii. waay ou bien dans le nez. waay ou bien syphilis cérébrale. waay. Hmm? waay mooy joxe ay AVC. ok xam nga <laughs> maanaam xam-xam yi xaw a wuute rek quoi. ok xam nga am na ñuy wax dañu am corte corte day nekk si biir yaram bi di daw. Mhm. tey fii la. suba fii ginnaaw suba fii. Mhm. boobu day dund ci biir bi doom mhm, mhm. waaw. day am yu mel noonu. mais yow kii nga xam ne kort nañ ko ba pare. bu ñëwee ci yow mën nga ko ci dimbali. waaw mën naa ko dindi. ok naa ko dindi. bu mu ci mën di doon. waaw d'habitude yi ci bëri mën naa ko dindi. ok amul maa dindi yëpp de. ok ok. <laughs> am na si am na ci yoo xam ne daal mën nga koo dimbali. am na si bëri daal mën naa ko si dindi. waaye parce que aw xaw ma façon korte yëpp. am na façon corde yoo xam ne mosoo gis. ok parce que am na fa la ëpp junni façon corde. Mm-hmm. waaw benn façon. benn façon trop trop trop trop. du lépp la ñu mën a wax. léegi booy corde nit ni muy gaawee noonu. Mm-hmm. par exemple eh, ñi koy def te am xam-xam boobu nan la lan la ñuy utiliser pour corde nit. ça dépend si corde bi nga yor am na mm-hmm. corde yoo xamante ni mën nañ ko defaree lu ne. corde ça dépend xam-xam ni nga ko amee rek xam naa ne du ma wax fii ni ñuy defaree quoi. <laughs> ok non nga junj rek quoi. waaw gars yi si dañ koy usé. non nga junj rek quoi non nga junj rek quoi. ça dépend am na façon corte yoo xamante ni dañ koy defaree ci misaal bon mbokk quoi am na yoo xamante dañ koy defaree affaire yi bëri quoi du du jeex. même ah, même basi même am naa fi benn basi boo xamante ni corte la mën na laa mën na rey nit. fii ak suba quoi mu ngi fii nii mën naa ko. <laughs> boo ko génnee may ko benn gros léegi mu mu jàpp nit kii. Ah, mën na koo jàpp fii ak suba. ok mm, da nga koy yónni nga ne ko defal ma diw biir buy metti wala bopp buy metti wala. yaa xam loo koy loo. est-ce que nit mën na kortu koo xam ne par exemple mosu ko gis. man ma ñëw bëgg kortu nit. jox la turam ne la mi ngi barab sàngam. ndax bu nekkee bu nekkee bu nekkee Australie sax xam naa ni moo gën a sori. di nga ko te mosuloo ko gis. mosoo ko gis. ok turam rek ngay soxla yéene la sax am na loo xamante ni yéene dong la. ok am na kortu yoo xamante intention dong la parce que yàlla yéene la xam da gis léegi Mouhamad. ñaata nit ñoo tudd Mouhamed. Mhm. ñaata ñi ñoo tudd Gàndu xam dafa bëri. ok mais yéene bi nga am la maanaam Gàndu man mii Gàndu. bi mu ngi fii rek quoi. ok voilà tuur yi lu ñuy bari bari. bari bari yéene bi mooy ciblé. mooy ciblé quoi. ok hmm. mooy ciblé.